sayyidina wa xabibina wa mustafana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala kulli alihi wa asxaabihi wa daacina bi daawatihi ila yowmi tanadi mbokk yi seetaan télévision Futurs Médias ñu ngi dellu siwaat ci kàttanul yàlla di sar mbokk yëpp di baal ñëpp àq di balu ñëpp itam àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala àdduna bii nga xam ne ci la ñu nekk rawatina ci sunu réew jafe-jafe yépp yal na ko yàlla yombal ci kàttanam eh, di ziar sénégalais yi nga xam ne ñu ngi topp waxtaan bi ci bitum réew ñoom ñëpp kenn ku nekk fa nga nekk yal na la fa yàlla fekk dolli la jàmm dolli la ak dal eh, tey sunu invité moo nekkoon al imam Ismaïla dem mu nekk directeur bureau régional bu ligue islamique mondial nekk fii ci Sénégal nekk itam imaamul euh, jàkka ci Pikine Icotaf wala juma Icotaf waaw kay moom la ñu dalaloon tey ci xew-xew yi xew ci jamono xew ko ci àdduna bi rawatina ci monde islamique moom en tant que bureau euh, maanaam nekk directeur bureau régional xam ne moo ëmb su région bi yëpp ci yëngu-yëngu ligue islamique mondiale na bu ñu bureau régional ak yi xew Malek ya fa xew ak ak fi réew mi toll ak monde islamique yooyu yëpp fas nañ yéene waxtaan ci diplomatie Sénégal fas nañ yéene waxtaan ci ak relation Sénégal ak euh, monde arab comme que yàlla def na mu doon yënguti itam ci wàllu diplomatie waxtaan itam ci wàllu coow li fi amoon daara yeeg dañ koy tëjëg duñ ko tëjëg coow li bari woon na yooyu yëpp jàngoon nañ lu mel noonu incha allah euh, yooyu yëpp dinañ ko dajale euh, ñu xool ci ban xiraa àll ci am maanaam ban lecture moom la ci am kon ya imam ñu ngi am mbégte dalal la fii ci télévision Futurs Médias gannaaw boo xamee ne àdduna bi yëpp euh, ñu ngi lay suivre ñu ngi lay déglu ñu am ci yaakaar nag ndax say responsabilité yi nga xam ne yaa ngi ko yore ci monde arabe àdduna bi yëpp rawatina nga teewal fii ligue islamique mondiale ci sunu ci Sénégal muy rabitatu alamil islami ligue islamique mondiale islamique mondial kon mu mel ni seen liggéey dépassé na xëy danga nekk ci gox bi mais yëngatu ligue bi ci monde islamique dafa mel ni dafa sedd lool dafa sedd lool loolu incha allah bëgg naa nga nga waxtaanul ci parce que problème yi islam di am yëpp da ngay dégg ñu naan yi moo yore dossier bi nan la américains yi ñoo yore su ñoo yore euh, dossier yi wala français yi ñoo yore euh, maanaam dossier yi ana isla ligue islamique mondial ban dossier la yore ak yan rôle. moom lay joué ci bu jullit ñi amee muskila gannaaw boo nuyoo mbokk yi su ko defee ñu dugg ci thème yooyu idan tafadal mashkura ya imam bismillahi arrahmani arrahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yëpp ci biir réew mi ak ci biti di jiital ci nuyoo bi ji jiital yow ci nuyoo bi ndax yow yaay sabab di la sant di la gërëm ci invitation bi ma defal di jël sama nuyoo di ko teg sa loxo nga teg ko ci loxo kilifa kër gi eh, kilifa kër gi li ko dalee ci kilifa gu mag yi ba ci ay collaborateur ñoom ñëpp mm-hmm. ak ay collaboratrices ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ci bés bu tedd bi di leen ziyaare di leen ñaanal di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla defal jàmm mm-hmm. Euh, di bëgg loolu di ñëw yow encore di bokk ak yow émission ndax yow sa émission macha allah euh, maa ngi lay wax sànq ne euh, ku ñëw sa émission sax jarul muy préparé. Mhm. maanaam yow da ko bu wax dimbale ko ba incha allah mu tegu ci yoon. Mhm. kon ñu ngi lay ñaanal bu baax wér gu yaram. di lay ñaanal gudd fan. amiin amiin ci suñu rakk yu ñuy tiitaroo nga. Mhm, ndax vraiment li ngay wax eh, yaa ngi gindi askan bi di bay sa waar. ci tool bu rëy bi nga xam ne du jeex mukk nag mhm. ku nekk da nga ciy def sa devoir mais sa devoir li nga ciy def moom ñu ngi lay ñaanal ñu ngi ciy ñaan barke ndax kontaan nañ ci trop jërëjëf jërëjëf mhm. eh, waaw li aju ci thème bi nag bala ñuy commencé sax danaa wax ne man ñëwuma fi sax ci cadre ligue islamique mhm. mondiale dama fi ñëw ci cadre sénégalais imam boo xam ne eh, kër gu rëy gu ñuy tiitaroo bu ñuy ñaanal invité na ko suñuy mbokk ne fi suñuy jarbaat ne fi. su allah mhm. suñuy doom ne fi. Euh, ma kontaan trop ci ñëw fii. Mhm. Euh, ñu sottantee xalaat ci thème boobu. Mhm. comme nag man la yàlla dénkagum bureau régional bi. loolu tamit boo ko ci ñambaasee. du wàññi dara du wàññi dara. am na ci waaye damay préciser ne man ñëwuma fi pour loolu sax. waaw waaw kay euh, jërëjëf ñëwoo fi pour loolu mais doo ci mun a génn comme ni nga ko waxee ndax comme bu ne nee directeur. bureau régional bu ligue islamique mondiale kooku mooy sa ndombo tànk balaa ñuy ñëw ci yeneen tomb yëpp ñu waxtaan ci en tant que rabita alamul islami euh, ligue islamique mondiale ak jafe-jafe yi islam am ku ne xam na ko seen taxawaay ca bu njëkk yàgg na wax nañu ne moom même membre fondateur yi suñuy kilifa ku demee diina ku demee ni cheikhul islam El Hadji Ibrahima Niass seen initiative bokk na ci ak kilifa yu bari. Cheikh Dabaax vraiment kilifa yi yëpp rafetlu ko fii. Cheikh Fadel Mbacké voilà kon Sénégal am nañ cër ci. en tant que Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma. kon Sénégal am nañ euh, rôle bu rëy ci taxawal ligue islamique mondiale. Mm. fan la islam tolloon ci jamono jooju ba kilifa yëpp amoon gis-gis ne nañu tabaxa man léegi nañu taxawal ligue bu mel noonu. waaw jërëjëf ci question boobu xam nga fi islam tollu boobu mooy ne amul woon benn kàddu euh, boobu ñu ngi waaj a ñu ngi door a créer euh, euh, OCI ca congrès bi nga xam ne moo amoon ca Maroc ginnaaw bi ñu lakkee baytul maqdis mhm. masjid al quds al aqsa masjid al aqsa biñ ko lakkee yahud yi lakk ko jullit ñi gis ne réew réew yi gis ne war nañoo def kàddu ki muy benn mhm. jot na nag loolu moo indi woon bokk na ci surtout problème yi nga xam ne moom la jullit yi doon jànkoonteel mhm. ak xëccu gi nga xam ne moom la communisme doon xëccu ak yeneen kuréel yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir l'islam di jëme nit ñi foo xam ne fu leerul la jullit ñi daje chef d'état yi daje vraiment war nañu euh, sos kuréel goo xam ne mooy dajale kàddu yi loolu moo indi sos euh, OCI yi mais moo indi aussi presque sos ligue islamique mondial mais ligue islamique mondiale nag euh, mhm. ñu bari mhm. dañuy jaawarle ñun duñu duñu duñu organisme étatique mhm. membre lañu ñu OCI membre fondateur mais ñun c'est au niveau du des peuples mhm. des de des peuples ñun organisation populaire la maanaam organisation askan wi la mhm. ñooy dajale euh, siège ba mu nga màkka mais ñun du ñu ay gis loolu bari ci état ñun bokkuñu ci mhm. maanaam ñun peuple bi la ñu représenté ñu ngi ci association yi ñu ngi ci jullit ñi ñu ngi ci daara yi ñu ngi ci école arab yi ñu ngi ci seet lu julit ñi bëgg bu dee ay téere la bu dee ay teen la bu dee ay jàkk la bu dee ay école la bu dee njàngale mi la bu dee ay colloque la dajee wax ci mbiru l'islam mhm. amul benn événement buy am te ligue islamique mondiale euh, financé wu ko wala bokk ci wala initié wu mhm. moo xam fii ba barki démb lañ jóge Thaïlande mhm. def fa benn congrès bu mag yaa ngi wax léegi maa ngi la dégg amul benn thème boo xam ne moom mooy préoccupation julli ñi te isla ligue organisé wu ci benn rencontre yëngatuwu ci waxtaan daal yëngatu ci waxtaanu ci moo xam ca màkk la mhm. moo xam feneen ak feneen la mhm. comme bi ñu defoon fii ci Sénégal mhm. defaat ko fi defoon nañ fi ay nadu ay nadawaat yu bari yoo xam ne bii mu ngi aju ci alxuraan ñii ñu ngi aju ci euh, situation jullit ñi kon nag ñun suñu liggéey du liggéeyu état ak état waaw c'est-à-dire OCI moo yor yi moo yor loolu mais daal yéen mais yéen daal maanaam wàllu population yeeg. <laughs> voilà ñun ci association islamique yi. Mhm. ci organisme islamique yi. ci organisme à caractère humanitaire. Mhm. ñoom ah ñoo noonu la ñuy ak euh, ñooñu la ñuy liggéey. ci yooyu ngeen di liggéey eh, loolu am na solo trop. Mm. fekki population bi. Mm. ci seen gëstu seen jafe-jafe yëpp wax ak ñoom. Mm. Sénégal temps yi am na fi coow lu jóg lu bare bare bare bare bari. ñu ko wax problème mu taalibe yi. ak problème mu njàngam alxuraan ci Sénégal. Mm-hmm. réaction yi bari nañ imaam yeeg. Ah, ustaas yeeg sëriñ yi daara yeeg ñëpp jog nañ. parce que réaction bu président defoon ñu ne def na day tëj daara yi. Mm-hmm. ñii ne noono waxut loolu. ak jàngum alxuraan ci Sénégal. Mm-hmm. coow loolu. Euh, yow en tant que directeur régional comme ni ñu ko waxee ci ligue islamique mondial parce que seen yëngatu ci njàng mi la dimbali jullit ñi. naka nga gisee yalwaan gi ak njàngam alxuraan mi ci ci Ndakaaru. sax lay wax parce que di yalwaan gi fi la gën a bare fii la coow nekk eh, kër gi lakkoon ba taalibe yi génn ci àdduna ndakaaru gi la amee léegi yow xew-xew yooyu lan moo ji sa gis-gis ban lecture nga ci am jërëjëf question bu am solo la hmm. eh, xëy na am na ñu ma xamul man doomu daara la am na ñu ko xam tam parce que Pikine gée ñu gendarmerie ba ñu dëkkoon avant ñuy dem pikin sama waajur daara la yore woon man ci daara laa jànge hmm. moom moo yore daaraam daara bi xale yi ñoo doon jàng si di wàcc midi di di gont si ngoon di dem seen kër di wàcc di ñëw. Mhm. kooku amuloon woon yelwaan li ci des mooy bi ñu demee Pikine mu continuer daara ji kon man doomu daara la xam naa mbiru daara. Mhm. Euh, taalibe laa daanaa yelwaan tamit mais xam nga li indi yelwaan ci daara mooy ñàkk rek. Mhm. am na ñu essayé di naan wala yelwaan day yar doomu aadama day non yelwaan day toroxal doomu aadama mhm. yelwaan du yar doomu aadama mhm. tàllal loxo day toroxal doomu aadama yaddu loxo li xel mi hmm? moo tax loxo bii joxe moo gën loxo bii nangu bii nangu loolu islam la d'accord mhm. ba tax na kon yelwaan bi ci daara yi dafa am cosaan bi colonialisme bi ñëwee dafa ber njàngin moomu alxuraan bi encouragé wu ko bu ndoxatal jàngalekat yi suñu maam yi ñoom nag ñuy def pexe bu ne pour jàng alxuraan parce que ñoom ay jullit lañu. Mhm. pour sauvegarder alxuraan bi. Mhm. léegi nag ñu bàyyi leen ak seen bopp. mais il faut ñu organiser wu ñii dañu amoon ay tool di béy di dundal di ci dund di ci dundal taalibe yi. Mhm. taalibe di liggéey ñu am seen système bu ba ñuy liggéey di jàng di béy di jàng. ah daawuñu sax yalwaan mais yalwaan bi ñëw na après parce que amatuñu loolu. bon loolu yëpp xam nañ ko wax nañ ko déglu naa déglu naa liñ ci wax yëpp mais yelwaan du cosaan ci daara. Mhm. ñàkk tax ñu yelwaan. te nag dañu war a am gis nga ce que yow ñun ñuy jàngi woon jóge fii am bourse ñu ñuy fay bourse nekk ñu nekk ci internat ah ñu ñuy fóotal bu ñu suñu yëre tilimee ñu fóotal ñu bu ñu bëggee doxantu bu weer dee ñu jox ñu xaalis est-ce que ñun dañ daan yelwaan. Mhm. ñun jàng nañu ba pare yelwaanuñu. Mhm. waaw man mi nekkoon ak sama waajur. ñuy ubbi daara di jàng xale di jàng di wàcc man may jàng di wàcc mais xale yelwaanuñ kon yelwaan ñàkk moo tax ci mhm, daara mhm. léegi nag discussion bi ci war am yëpp déglu naa ko mais war am na yoo xam ne warul am mhm. warul am parce que président li mu wax lu leer la premier ministre li mu wax lu leer la ministre de l'éducation tey wala démb li mu wax lu leer la dafa am nag ñoo xam ne réew mi ni mu demee xam nga ñu ngi ci démocratie. Mhm. ñu ngi ci loolu sax baax nag euh, euh, wuute ay xalaat mais man yaakaar naa président fi mu juumee mooy dafa am émotion xam nga lakk juróom-ñeenti nit faatu ci mhm. juróom-ñeenti xale. ñu ne ay taalibe ñu taalibe dafa émotion bi moo ko jàpp ba mu mhm. mu jékki-jékki def déclaration boo xam ne kooku tamit. maanaam ci tàng tàng bi ci tàng bi. kooku tamit ñàkk conseiller moo tax. waaw ak it tàng tàng xam nga dafa mer tàng tàng bi c'est triste ah voilà toog ci réew moo xam ne ñu mm. taalibe yi mm. lakk nañu ba mm. jeex ay xale yu ndaw neuf ans kooku dafa métti kon réaction mooy loolu mais li mu wax dara neew ci mm-hmm. dégg naa ay ay interprétation yu bari ay kii ay wax yu déplacé fii rek ngay gis sëñ sëñ tey man def ma jaaxal fii rek ngay gis bu ñu amee problème ñu ne état bi deful devoir xam nga ñuy yuuxu état bi la bu ñu amee problème bu ñu yelwaane ñu ne état bi la bu ñu toogee ci tali bi di def lu neex ñu ne état la moo deful devoir am bu euh, mbënd mi kii ñu ne état bi lu dëgg mais bu état bi di jógee am yéene def devoir am mais dañ ko war jàppale. ñu ne déedéet encore ñu ne hmm. mais état bi ndeysaan. billaay nekk sax di di di di di di di di. di hmm. défendre état. Hmm, ah, waaye damay xam ne rek jiite réew moo metti ciitu réew mu mel ni Sénégal il faut kon ñu yaatu ñu am yar ñu am teey ñu ñu ñu dëggu parce que sama sama émission dëggu boobu encore dama mm. koy dama koy répété waat mm. nañu dëggu ci lu ñuy wax du caagin euh, affaire bi bokkuma ci rek naa ci xëpp xëpp suuf cere ji lekkuma ci naa ci xëpp suuf mm-hmm, non mm-hmm. ak lu ñu def initiative bu ñu wax bu baax wala buy jëmale euh, njàng mi kanam wala buy jëmale réew mi kanam comme bokkuma ci rek wala gisuma ci sama bopp rek naa ci xëpp suuf. Mhm. loolu du du patriotisme. Mhm. moo tax yu bari dafa naqaree wax. ci réew mi. Mhm. moo tax euh, tey man dafa ne defee naa ne ci lii occasion la. pour ñu inviter Sénégalais yi euh, responsable d'abord nañu nañu nañu consolider nañu programmer euh, instruction civique. ñu yaatal ko benn ñaareel bi nañu inclure pas politiquement l'enseignement religieux mhm. sérieusement ñu fonk ko mhm. comme ni ñu ko waxee nañ ko fonk parce que fi mu ne déggu naa sociologue yi ñu ngi wax léeg-léeg ma déglu professeur Djibi Diakhaté sociologue la bu am solo am su ah, alhamdulilah bil alamin yàlla ko mhm. yàlla euh, dimbal jàppale mais analyse yi ñuy def yëpp dañ ciy écarter diine dañuy wax à ah, problème sociaux nañu defar lii nañ defar dëkkuwaay yi nañ d'accord c'est très bien mais fi ñu toll fi mu toll ñun fii ñu toll man defe naa ne problème mu instruction religieuse la ñu amul waaw te loolu war nañ ko renforcer. Mhm. waaw loolu moo tax. Mhm. ma ne vraiment euh, am nañu devoir loolu ñun ñun ñun ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéenay yéenay yéenay waxkat wax waxtaankat yi yéenay mhm. conférenciers yi ak suñu mag yi nga xam ne ñooy sëriñ yi ak euh, ñun ñi nga xam ne ñooy liggéey ci mbiru l'islam ñun ñëpp. war a ñu coordonner suñuy action di déggoo moo tax vraiment li ñuy wax ci daara yi amul. Euh, président nag <coughs> président. Hmm. bu ñu nee dafa juum fenn rek la juumee gaaw wax bi waaw. te nag bu mu dellu ginaaw dañu ne dellu loolu yaa wax ne ci tàng tàng bi la. parce que choc. waaw choc bu amee rek. waaw yenn réaction yi mën nañ am nu mu demee. mais bi mu toogee ba dellusiwaat ci boppam. waaw weddi lu information yu bari lu ñu waxoon. te te tey uh-huh. bala ngay ñëw ci kii boobu. Hmm. il faut que ñuy ormal institution yi fii rek Sénégal rek malgré notre démocratie démocratie dafa am limite. Mhm. limitu wax ak limitu jëf. institution da nga koy respecté mais dem ci média bi di yàq président ni ñi xamee di wax moom comme kuy wax ak un vulgaire. Mhm. kooku Sénégal rek la ah, maanaam même bu dul dara. waaw mun nga ci. warmal ñeneen ñi yeneen sénégalais yi sénégal rek lañ ko gisee parce que bu ñu la xasee jéetal nag yaay président wu ñëpp nag waaw kilifa nga nu munta demee waaw kii wax ak yow war na ciy sooraale xëy na ñeneen mais xëy na loolu amaguñ jànguñ amuñ culture boobu euh, xëy na dina ñëw ci kanam mais bu ñu ñëwee bu ñu si dellusiwaatee ci wàllu daara yi ba léegi yaa imaam euh, njàngum alquran jullit kenn mënu ko arrêté loolu hmm. moom bu ñu yeboo arrêté loolu kenn amul xalaatu it arrêté ko hmm. mais am na loo xam ne dama doon wax ne boo ci bokkee yow nga xam ne tey bu rafetee ci yow la bu ñaawee ci yow la bu hmm. fekkee am na koo xam ne mu ngi ko yàq mais waxtaan lag moom hmm. moom laa waxoon ci hadisu yonent bi ci unsur axaaka zaliman aw masluman hmm. sa mbokk bu tooñee dimbali ko buñ ko tooñee dimbali ko ñu ne ko buñ ko tooñee mën nañ koy dimbale mais su tooñee naka lañ koy dimbali yonent bi ne mu ne da ngeen ko naan tooñ nga ngeen téye ci loxoom bàyyi tooñ yi njàngum alxuraan mi am na rax buñ ko waxee d'accord buñ ko waxul d'accord am na rax am na ñu jël xale yi di leen wutee xaalis te jàng luñ leen alxuraan dëgg la yaa Ismaël xale bi xëy 6 heures du matin te lii ma lay wax du lu ma foog du lu ma yaakaar lu ma dund la lu ma gis la 6 heures du matin boo de boo boo demee ci arrêt car yi fi nit ñi jëlee car fa nga leen di fekk ñun de ba ñuy jàng waxtu lañ doon jàng ñun six heures du matin ñu yeeñu alquran njàngum suba teel fajar sa leçon boo ko jàngee ci guddi gi mokkul cinq heures lañ lay woo balay huit heures nga tari ko yow heure boobu mu lay fekk yaa ngi wuti xaalis ci lañ yeewu suba teel di kar karne ji ci are yi di wuti xaalis xale bi kañ lay delluwaat fa muy jàngee vingt et une heures ban lay jàng ki xëy six heures du matin di wër ba vingt une heures nit ci mbedd yi kooku ban heure lay jàng nit ku ne nit la même bu doon mag day sonn rawatina xale bu tëddee rek départ nay nelaw parce que dañ ko sas 500 dañ ko sas 300 yooyu il faut bu ñuy waxtaan ci wàllu daara ji il faut ñu nangu koy nangu ñu xam ne am na ñu nangu ko moo tax mu ne daara yi jaarut yoon il faut ñu xool leen ñu jéem a xool naka lañ leen réglé ma yaakaar na itam loolu wax dëgg yàlla am na ci ñoo xam ne jaaruñu yoon parce que xale yi la ñuy exploité di leen wute xaalis yaay maam non loolu am na daara yoo xam hmm. ne turu daara rek la hmm. moo tax li ñu wax yëpp dëgg la am na daara yoo xam ne turu daara la du def honneur ci jàngalekat yi sax ñi sérieux sax dañu war a bañ loolu ñi am daara yu baax yi dañu war a bañ loolu ñoom ci seen bopp ñoo war a xeex ñooñu ñëw ne président ak état bi ne ñun ñii nag ñii day duñ leen bu leen bàyyi ñu nekk fii mais du état bi mooy taxaw naan dañuy yàq turu daara dañuy dañuy yàq turu daara hmm. li yàq turu daara mooy ne ñun euh, ci bi si fa am daara ci boppam dafa am problème même daara yu baax yi dañoo am problème. Hmm. waaw xanaa xamoo loolu. lan mooy seen problème xanaa seen problème mooy amuñu euh, système bi nga xamee ne moom moo leen di permettre njàng mi au lieu muy am dix ans quinze ans mais mu am cinq an te xale bi bu fa jógee ñu préparer ko pour mu nekk dara dañu am problème. Hmm. problème mu méngoo ak jamono ji nit xel dafay dafa war a liggéey mun loo wax ne tey man alxuraan bi ni ma doon ne si ni ma ko doonee ci sama baay ak samay maam noonu rek laa koy defe bu ko defee nga yett say àlluwa di toog ci suuf di sol yu xotteeku ak yu tilim di yóbbu xale yi ñuy ñuy jamono ci tolloon ñuy souffrir waaw di tilim fi mu ne ku jàng alxuraan da nga war a set mm-hmm. ku jàng alxuraan da nga war a wér mm-hmm. ku jàng alxuraan da war Euh, nelaw bu baax. Mhm. pour nga mun a mokkal. Mhm. def tafarrux waxuma la alxuraan tax mais lépp looy def da nga war a am tafarrux. Mhm. moo tax ñenee ñi raw ñu. xam nga moo tax daara boo ca génnee dañ dañ dafa am problème yoo xam ne dañ ko war a dañ ko war a aborder. mooy le système lui-même. le système lui-même ni ngay jàng foofu naka nga koy jàngale. lu tax suñu doom yi ci concours internationaux yi lu tax du ñu réussir. ci alxuraan lu tax dañu war a laaj seen bopp loolu. pourtant ñu ngi ci daara mun naa fi lim ñeent wala juróomi daara yoo xam ne ñoom rek ñoo ak daara yu bees yi nga xam ne suñu euh, rakk yi yi ñëw ci jóge ci duwal arab yooyu ñoo ko créé yooyu ñooy ñooy dox fi mu mm. ak daara cosaan yi nga xam ne xëy na du ma tudd kenn mais xam nañ leen ci Sénégal mm. à part ça benn daara buy jàngale njàngum mu baax mm. rawatina nag suñu daara ñun tukulóor yi ca Fuuta bu ma fa demee damay jooy wallahi ndax ni ñuy jàngee baaxul ni ñu koy jàngee baaxul prononciation bi baaxul tajwid bi baaxul dara baaxu ci. mais loolu loolu il faut il faut ñu wax ko. parce que alquran nag alquran la. Eh, la. dafa am ay règle dafa am ay règle ci njàng mag lépp wax dëgg yàlla boo màkkalee alquran rek di tere rek xamoo fu ñuy xëcc xamoo fu ñuy taxaw xamoo fu jànguloo jàngoo ko waaye pratiqué woo boo demee concours doo doo admis. noonu la arabe bi mel aussi. noonu la arab bi mel arab bi tam dafa war a am dafa war a am pédagogie mhm. dafa war a am programme dafa war a am ay compétence dafa war a am après ñu ñu ko bu baax defar ko bu baax moo mooy tax ñuy génne dégg nga maam keroog maa ngi kaf maanaam waaw ñoom dañuy wax daara daal suñu maam yi nangam nangam mm. waaw suñu maam yi fi bindu téere su maam yi fi bind téere mhm. mais ñoom ñu ci daara yi rek de mhm. jànguñu alxuraan rek pare dañoo jàng yi dañoo jàng yeneen dañoo jàng yeneen jànkonteeg naar yi merci defar seen affaire mhm. defar seen làmmiñ defar seen xam-xam léegi nag yow boo toogee fi sa maam toogoon rek nga naan sama maam nangam nangam loolu bokkul ak bokkul boo jàngee alxuraan bi xel dafa am yeneen. voilà yu ko war a àndal. yeneen i bagage yu mu war a àndal. danga nga war a mokkal. pour nga mën a mais boo mokkalee da nga war a defaraat sa sa mokkal gi. xam nooy defee xam nooy waxee. pour nga nekk nit ak it jàngi nax woog mantiq ak ya ca aju. <laughs> yaay tax nga man koy xam ak lu xala arab tax nga mën koy xam. yooyu dina la dimbali euh, completement kon loolu dama yaakaar ne euh, yaa imam euh, lu leer la bu ñu ñëwee ci loolu wàllu daaya daara yi la woon dégg-dégg moo amuloon seetaan na premier ministre mu ngi dem démb ci daara. Mariama ñas jël ko comme daara modèle gis nga xale yi man xam naa ko avant loolu dama fay dem ci yaa sayta gis naa xale yi léeg-léeg dama fay dem balaa may génn mu dajale ñaari xale ñu tëril ma alxuraan bu leer moom yooyu ndeysaan ci lay lay faral def daara ju leer la xale yi njàng mu leer njàngin mu set organisation am na moom la jël koom daara modèle am na yeneen daara yu mel ni moom ci biir euh, Sénégal mais am na daare yoo xam ne vraiment turu daara la yooyu ñun ñëpp xam nañ ko euh, président bi mu leen jëlee yit nee na waxul ne day tëj daara yi maa naan ñii dañoo amul seen seen communication moo baaxul parce que bu ñëpp di téléphoné naan nee na dañuy tëj daara te waxoo loolu mais war ngay am communication bu génn bu leeral nit ñi ñëpp xam ne yëf yi demeewul noonu. mais dafa am lu ci xew. loo xam ne moom la ñëpp contre loolu barki dem rek la doog na ko wax dem rek la doog a am sinon yooyu yooyu bon bu ñu ñëwee ci loolu daara ji la. Hmm. nañ ko organiser régler ko ñu jàng alxuraan parce que téere yàlla la dañ ko war a respecté dañ ko war a fonk. en tant que jullit waroo toog ñàkk jàng alxuraan wala sa doom ñàkk jàng alxuraan kooku catastrophe la ci àdduna bi. Hmm. alxuraan nag du fi jógee ba ilay mi diin. Hmm. yàllaa ko gardé. tubaab yi dañ ko daan taal daara yi mais ba léegi defe naa jàngum ñi doon jàng alquran sax ca bu njëkk tey la gën a bari fii ci biir Sénégal mu lay wan ne alquran yàllaa ko téyel boppam yaa imam bu ñu ñëwee ci <clears throat> wàllu muskila yi problème yi am nga ko daan dégg Afghanistan di ko dégg Irak di ko dégg Palestine affaire u jihad affaire u islamiste affaire u mujahidun fi sabilillah li xew Mali li xew Mali eh, ci wàllu ñii ñu jog ne dañuy implanter l'islam gis naa leen barki dem waa jaa ngi làkk français ñun dañuy jihaad ci laa ilaha illallah muhammad rasulullah nangam ak nangam ak nangam yow ci sa xam-xam bu yaatu ak ni nga jàngee lislaam ak ni nga xamee règlement yi lislaam sant ci wàllu jihaad ak li xew Mali ban étude ban xiraa nga ci am yow. waaw li xew Mali dafa doy waar. Hmm. ndax dafa am ñu fa nekkoon bokk ci réew ma di laaj seeni droit. Hmm. ne ñoom. seen identité culturelle ak national dañ ko war a am. Mhm. mooy tuwaare gi. mooy tuwaare gi. Mhm. ci loolu ñu nekk ci loolu ba ñeneen ñëw profité ci événement yi xewoon Libye ak feneen ak feneen ñu ñëw jaxasoog ñoom ndax euh, ñu réaliser seeni ay objectifs. yoo mhm. xam ne mooy. Euh, tasaare seeni idéologie yooyu ñuy def mais loolu euh, képp ku euh, nekk jullit ràññee jàng taarix jàng islaam xam ne ne li ñu def teguñu ko fen teguñu ko ci lislaam hmm. de teguñu ko fen parce que d'abord jihad kenn du ko décréter jëmee ko ci ci jullit ñi booy jihad dangay dem ci yéeféer yi yéeféer yi nga xamee ne amoo ñoom pacte. te loolu dafa am ay surut te yow dafa mm-hmm. du yéeféer rek boo ñëw nga ne ko tey yéeféer nga defu la dara waxu la dara mu ngi ci diineem nga bëgg a ñëw ne ko tey tey. da ngay mm-hmm. loolu. Mm-hmm. et jamono dafa dox. et la ikraha fi din la ikraha fi moo baax. mais ijtihaad fardi. nga jékki-jékki rek tey soosey yow euh, borom xam-xam nga. jullit nga nga jékki-jékki rek ne tey. tey ma def nangam tey tey ñu def nangam. Mm. itihaad itihaad far itihaad fardi tey ñu def nangam nga obligé ci nit ñëpp loolu nga bugg a dem sa jël sa arme jëmale ko ci nit ñi loolu du mm-hmm. l'islam mm-hmm. loolu moo mm-hmm. bouleversé àddina bi gis nga ñun euh, ci ligue islamique mondial souffrir nañu trop ci bi nga xam ne attaqué nañu euh, Amérique ci 2001 septembre 2001 souffrir nañ ci trop ndax dafa amoon euh, xam nga Arabie Saoudite mooy siège bi ci biir ligue islamique mondial ña koy doxal ay saoudiens mm-hmm. yu bari dañ fa am mm-hmm. siège ba foofu la nekk mais dafa am ci ñoom ñu ñu ñu bokkoon ci affaire yooyu mm-hmm. waaye dem nañu di def enquete di def enquête def enquête ba gis ne ligue islamique mondiale yoonam newu ci waaye avant ñuy xam loolu ñun xaw nañu de ba léegi moo ñu daal yaa ngi wax fii léegi sa biir euh, introduction ne suñu liggéey nangam mais loolu moo bokk na ci lu soxal l'islam moo tax am na action yoo xam ne boo koy def ay actes yoo xam ne boo koy def boo xalaatu laa waxoon ne unsur axaka daaliman aw masluman yooyu moom hmm? euh, li xew li moom hmm. kenn du ci d'accord dañuy permettre suñu noon yi hmm. suñu noon yi ok suñu noon yi lañu doon la ñu doon tuumaal voilà dañ leen di permettre non seulement la doon tuumaal mu am mais dañ leen di permettre bu ñu ñëwee di di ñu jàppale ñu def fa fax loo xam ne ñun neexuñu mooy lii xew mooy li xew. ba maanaam mooy nga fexe ba indi leen fa. fexe ba indi leen fa te bëgguñ fa woon a ñëw. ñu bëgguñ fa woon a mm. ñu def fa loo xam ne méngoowul ak sa cosaan méngoowul ak sa aadam méngoowul ak sa diine jël euh, bien réew mi yëpp nag akimoo ko di la contrôler nag de A à Z dootoo mun a yëngatu. Mm-hmm. loolu nag bokk na ci. Euh, euh, résultats yi nga xam mm-hmm. conséquences yi mm-hmm. yi nga xam ne moom lay loolu di indi te loolu yëpp ñoom ñoo ko waral ah. parce que léegi nag fi mu ne il faut ñu respecter Euh, frontière àddina bi nu mu tëddee il faut ñu respecter droit de l'homme mhm. il faut ñu respecter démocratie parce que démocratie moom islam ñu ànd islam islam du loo xam ne rek looy gis ñu bind ko ci alquran wala muy hadis nga ne lii rek mooy l'islam lu génn loolu du l'islam lu génn loolu te ànd ak principe bu islam yi islam la mhm. loolu la Ibnu Qayyim wax ci téere mhm. boobu boo demee ci ci at-turuqul hukmiyya Ibnu Qayyim daf la koy faram-fàcceel. Euh, bu baax a baax nee na euh, politique mooy lan politique mooy sàmmoonteeg masla euh, peuple bi mhm. ci li nga xam ne moo neex yàlla doon tant que loi yi ngi leen di atteel wàccul ci alquran yonent bi mosu koo digli mais loi la yoo xam ne mu ngi ànd ak maandute mhm. te objectifu l'islam mooy tasar tasaare maandute doxal maandute ci kaw suuf ah, loolu kay alquran la comme sunna la yonent bi la alayhi salaatu wasalaam inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba ah, wa yanha anil fahsha'i wal munkar ah, yooyu kay defe naa ne aaya boobu kay defe naa ne wax dëgg yàlla mu ngoog eh, loolu loolu mooy politique bu normal gàtt gis-gis la hmm. ne hmm. lépp lu may euh, lu ñëw te amul ci lislaam maanaam alquran waxu ko hadis waxu ko lépp mooy démocratie bi turu démocratie mais tur la rek mais mu ngi ci wa amruhum shura baynahum lan mooy démocratie dul musaawara am na fa lislaam wuuteeg démocratie parce que islam moom aqaliya rek la démocratie yi majorité la majorité bu dëgguwul wala majorité boo xam ne xusa alquran moom ay islam d'accord ci alquran moom li mu bëgg mooy qualité donte bu tuutee loolu ci domaine foi la ok attention waaw domaine foi hmm. bu majorité bi jéggee génnee siraatal mustaqim hmm. ma minorité bi war a ko topp bokkatul bokkatul mais nag domaine u maslaha hmm. réew nga xam ne mu ngi taxaw ci kaw maandute kooku ñëpp ko bokk très bien ah, d'accord naa ba léegi eh, loolu am na solo trop euh, yaa imam euh, bu ñu ñëwee ba léegi ci wàllu diplomatie xam naa boo nee diplôme mooy sax ñu ne baatu too la xanaa al alaqa ad eh, yi am ci àdduna bi waaw mooy diplomatie mais baat bi boo ko waxee peut-être dañ yaakaar ne li ngay wax génn nga l'islam te yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu njëkk ko joué bu baax a baax a baax joué ci muy woote ci Makka nekk Madina buur yi nekkuloon l'islam mu leen bind ay lettres di envoyé ay ambassadeurs hmm. comme li nga ko wax parce que al alaqat ad dawliya euh, li ñu tuddee relation internationale hmm. eh, mu joué ci rôle yu doy waar hmm. Eh, yow def nga diplomatie yaa ngi nekkoon Maroc même jamono jii ñuy wax sax tey defe naa am na benn buuru Maroc bu fi war a ñëw. Eh, Maroc relation Sénégal ak Maroc yàgg lool. depuis ca jamonoy Fatimi yoon yee yàgg mm. lool. Mm, eh, bien léegi bien avant mu yàgg lool Maroc Sénégal nekk benn. Mm. monde arab Sénégal ak monde arab seen relation diplomate yi naka la demee. dama dem Irak nekk dama dem Dawha Dawha. Ah, ma ci waxtaan Qatar ci waxtaan ak benn euh, sénégalais moo mm. xam ne ci wàllu diplomatie la doon yëngatu foofu moo xamal ma ne ma li ma déggul arab métti na ma lool mm. naqari na ma lool mm. parce que dama ne ci réewum arab te sénégalais ko jël yónni yónni ko foofu te mu yu ma te déggul langue ba damay waxal lu leer mu ne ma li ma déggul arab te nekk ci monde arab métti na ma lool ñaareel bi jasira chaîne bu intéressant la te vraiment li muy wax xaw ma ko léegi sax defal na leen ci anglais yi demee noonu ma yaakaar ne jël nit koo xam ne kii déggul arab wala nit ku déggul anglais wala nit ku déggul français nga jël ko def ko comme diplomatie mu war a taxawal sa réew ci réew mooma man loolu daf ma jaaxal yaa imaam yéen ñi def diplomatie est-ce que loolu yaakaar ngeen ne ñooñu mën nañuy rafetal deru Sénégal wala ñu jëriñ Sénégal ci li tax ñu yónni leen foofu waaw xam nga li ngay wax li nga wax nii hmm. président Senghor boroom xam-xam la woon ku hmm. muus la woon ku am hmm. vision la sama mag Moustapha mu may nettali ne euh, moom ci boppam moom moo dem gis ne présence ñëw ñi jàng arab ci diplomatie bi ñu affecté leen ci réewu arab yi dana dimbale Sénégal loolu Senghor moo ko gisoon vision la woon moo mm, taxoon mm. mu joxe autorisation nañu recruter arabisants yóbbu leen affaires étrangères moo tax premier arabisant yi ñu jëloon yóbbu leen affaire étrangère dañ leen defaloon concours texte lañ leen dañ dañ defoon pour dugg affaire étrangère. Mhm. dañ ñëwoon ñoom am sa ja yàlla ko yàlla yërëm moom Ousmane Sy ngi nii di dégg li may wax ci la ñu bokkoon ñoom boo fonctionnaire affaire étrangère parce que examen moo leen fa digal. Mhm. boobu de ubbi ENAM ubbiwul. ñoom ñoo fa njëkk a dem ENAM ubbiwul. Mhm. waxuma nag wuute nag ñi nga xam ne nag dañ leen jëloon nommé leen ambassadeur avant loolu. kon euh, loolu képp kuy xalaat dana xalaat dana xam ne am na njëriñ. parce que mm. nekk ci réew moo xam ne buñ lay jëw ci seen langue lañ lay jëwee te amoo kuy làkk langue ba wóorul. te nga te nga teewal fa sa réew bëgg. fa mais làkk langue bi rek doyul aussi. maanaam bëgg fa jël njariñ làkk langue bi rek doyul. Mm-hmm. sa langue réew muy langue officielle bi muy français il faut nga mun cee kurtu kurtu. il faut mu mun cee kurti kurti parce que ça nag c'est le réalisme nous sommes un pays francophone mmh. bien que ne francophonie bi bon am nañ ci beneen yoon danañ ci waxtaan mmh. mais c'est la réalité bu fekkee ne da ngay liggéey ci diplomatie bi euh, boo buggee toxal toxal say say idée ak say observation yóbbu ko Sénégal donc boo ko bindee arabe il faut ñu traduire ko. Mhm. il faut nga mun kon bind français bi. Mhm. loolu c'est nécessaire. Mhm, ñoom nag loolu nag loolu état bi mooy ñëw. état bi lu mu préparé est-ce que préparé na arabophone yi pour ñu dugg ci administration bi dugg ci diplomatie bi benn yoon la amoon ci Senghor tëj na amatul waaw amatul loolu nag dafa war a am dafa war a am euh, ndax euh, li nga wax nii am na ambassadeur boo xam ne fi mu ne mu ngi. ambassadeurs yi nekk ci biir arab yi am na ci ñu déggul arab mhm. mais dañuy xëy naan seen conseiller le journée yi wax ah, moom laa lay wax nii man kay dund naa ko la lay wax le mhm. journée yi wax le journée yi wax te itam ça doon l'occasion mhm. pour wax ne bi ñu ubbee ENAM bi ñu nañ ko doxalee baaxul par par loola woon ñañu waroon jël ñu def ENAM dëggantaan jëluñu leen ah? ndax dafa laajoon nekk jeune xam tubaab mun cee bind. Mhm. mun cee bind boo au moins lettre bu wér. Mhm. te wax dëgg yàlla ñu ñu jëloon euh, ñu baax la ñu boroom xam-xam la ay sénégalais pur la ñu amuñu lan lu leen reproché mais jëlil ba baaxul. Mhm. parce que dañoo écarté woon ñu bari ci loolu. te amuloon benn critère objectif yooyu erreur nag. yooyu nag ba léegi mu ngi fi. yooyu erreur nag lañ war a éviter inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha soo ko deful. waaw am naa yaakaar ne problème lay doon. mus naa. Hmm? mus naa ci biir affaire d'argent. Hmm. naa ko wax léegi parce que yàgg na. Hmm. lu la ñu daj foofu nag. man bokk Ismaïla Dem. moo tax damay wax ne xëy na li ma yàlla faye mooy li ma muñ affaire étrangère li ma muñ ah, ba yàlla. séddee ma ma ñëw jiite lislaam ndax man lislaam ci lislaam laa juddoo ku xam jamaa alwali mhm. fa ma nekk mhm. dana xam ne buur yi sax ñemewuñ faa dugg c'est ça ñoom ma tooñ Macky Sall moom ñoom salsal lañu ñoom mhm. waa gëre yi ñoom Macky Sall ñi ñoom dañuy éviter dugg jamaa <laughs> jamaa alwali ak Bokar Oumar Sall ñoom waaye loolu xew-xew la woon bon euh, dama lay wax ne affaire étrangère mus naa gis année bi ma fu dellu see jógee Algérie yaa ngi wax léegi leen Maroc Maroc effectivement nekkoon naa fa mais en tant que étudiant à bala ma koy fàtte. Mm-hmm. maa ngi bokk ci Séné ànd ak sénégalais ànd ak président ak ganam di leen wax marhaban. Mm-hmm. moom Mohamed Ciss. Mm-hmm. ndax ñun ameel nañu bor Maroc xoolal Maroc ba ba ñu fa demee quinze ans la ñu am. nekk nañ fa 10 ans 25 ans. fa laa defee secondaire ak supérieur. 25 ans laa fa nekk. loolu yëpp Maroc moo ma boursier. Mhm. moo ma jox bourse secondaire jox ma bourse supérieure. Mhm. ak complément de bourse lañ ko doon tuddee Sénégal moo ma doon jox complément de complément mhm. man ak ñu bari ñoo xam ne ñu ngi dégg sama baat wala ñoo bari ñu ngi fii tey. ñun kon Maroc ameel nañ ko njukkal bu fi buur bi ñëwee tey ñëw na ci fuñ ko bëgg. ñëw na fi mu war a ñëw bu ñu ko yëgoon ñu boole ñu ci dañuy dem organiser suñuy comité organiser suñu accueil dem accueillir ko. ndax ñun ay marocains lañu. ay marocain la ñu. Mhm. vingt cinq ans quinze vingt ans boo ko amee ci réew. ba pare am fa ay am fa ay sët. Mhm. xam nga foofa ca nga bokk. Mhm. kon ñu ngi koy wax marhaban moom Mouhamed Siis wa ahlan wa sahlan. li ci des mooy man Algérie laa ne woon. ak Bamako. li nga wax daal ci diplomatie bi dëgg la. ñu ngi félicité nag ministre bu bees bi. ndax moom diplomate de carrière la. mu ngi dundalaat diplomatie. waaye dundalaat diplomatie bi. gisaguñ ci réewu arab yi. Mhm. du la laat diplomatie bi gisaguñ ci suñu bopp gisaguñ ci réewu arab yi tey itam arabisants yi mun nañu apporter beaucoup de choses. dafa am kilifa gu mag gu masa wax ne Sénégal. Mm. Euh, ci ñiñ fay yónni nii rek jékki rek jël benn waay rek yónni ko fa. Mm. sabaxal xayri sax xëy na xamu ko. yaa ngi ne xëy na dégg langue bi rek doyut mais dégg langue bi moom mooy départ. mënoo dem ci réew bëgg fay teewal sa réew te déggoo làkku réew ma c'est impossible dañ lay jëw mënul ne hmm. mënul ne te mënoo fay indi njëriñ encore hmm. mu ne bu leen bu ngeen ñu mënta envoyé ñu ngeen ñi comme ñi comme comme comme su ngeen di yónnee Paris hmm. Paris wala pays français yi su ngeen leen di envoyé ay ambassadeur su ngeen ñu mënta yónnee nit ñu mel noonu boo sàggantu dina indi ñëgës ñëgës suñ digganteeg le monde arabe te suñ digganteeg monde arab moo ñu ëppal njëriñ suñ suñ digganteeg yeneen yeneen dëkk ya mën nañ lay may mën nañ lay jàppale ci lu bari bari bari bari bari bari comme ñoom li ñu jàpp mooy ñun ñoom ñun respecté nañ les français parce que ñi ñu leen di envoyé comme ambassadeur ñu dégg français la ñuy doon te ñoo bokk même liggéey bu ñuy def nga jël Arabie Saoudite yónni fa ko xam ne kii sabaxal xayri sax xamu ko loolu ñoom jàpp nañ ne loolu du respect ci diggante Sénégal ak ñoom mën nañ indi ñëgës ñëgës diggante diplomatie Sénégal ak li nga xam ne tey moo nekkoon monde ara loolu il faut nga bàyyi xel kilifa gu mag laa ci waxtaanal te moo la wax lii la ma wax kon ma yaakaar ne loolu il faut ñu bàyyi ci xel Euh, ci ci ci ci ci làkk làkk làkk mënta ñàkk mooy bunt mooy bunt réew li waa ji ne tahafat ala xifse lugati mujahidan fa kullu lugatin fi lxaqiqati insaanu munoo munoo munoo munoo dem ind ñu yónnee la fa te déggoo Inde c'est impossible oustaz Taïb li nga wax ok dafa nekk dëgg mhm. xam nga ñan ñoo ko mhm. yeneen xeet yi mhm. gis nga France buy envoyé ambassadeur ci réew arab yi day dégg arab ak noonu même Russie Angleterre noonu même Russie seen ambassade yi dañuy làkk arab fos waaw mais xam nga ñun fu ñu doole loolu waaw xam nga ñun fii dañoo doon doyadal arab ak ku jàng arab ci tubaab yi waaw mais loolu lañ doon imam imam est-ce que am na am na am na proverbe boobu arab waxoon man laa yaxtarimu nafsahu laa yuxtaram loolu nag arab yaa ko def <laughs> arab yaa ko def man laa yaxtarimu nafsahu laa yuxtaram est-ce que ci yow la wala ci man la wala keneen ak keneen la man laa il faut daal il faut daal ñu am formation. Hmm. il faut que boo buggee nekk diplomate. il faut nga xarañ. il faut nga am formation bu baax. il faut nga nga ràññee. il faut nga jàng bon erreur la nag bañ jagleel ENAM arabisants yi nga xam ne mun nañu am bilingue lañu mun nañu apporter beaucoup de beaucoup beaucoup beaucoup à à leur pays ñu bàyyi leen ñuy ñu ñu ñu leen. jubal leen defar leen ba ñu mun a contribuer ci développement wu réew mi mais li fi nekk daal mooy firange man li ma gisee ñi eh, eh, suñu mhm. mbokk yi jàng tubaab mhm, mhm. mooy ne dama gis ne daal dafa dañu réere mbir mi te dañu am firange tuuti waaw léegi loolu yëpp incha allah dina ñëw nit ki yaay il faut doo bàyyi sa bopp da ngay da ngay fuddu da ngay def intifada da ngay da ngay teew nga wane li nga mën loolu tamit ci la parce que boo boo làqatoo moo tax man la man la yaxtarimu nafsuhu la yuxtaram eh, liñ bi mu ngi noonu ci international bi ak national bi mbokk yi bëgg a ci liggéey bi léegi bu ñu ñëwee ci siyaasa politique bi ci réew mi ndax it euh, haysuma takun al maslaha fastama charulaahi kama yaqulun sahih mbooleem fu intérêt jullit ñi nekk sharia wax na fa mm. man lam yaxtamma bi amril muslimin fa laysa minhum mm. yonent bee ko wax te gis nga réew mi coow li bari na dëkk bi taxaw na mbokk yi nit ñëpp a koy wax. bu mm. fi dëkk xam nga loolu dëkk bi taxaw na. Mm. politique bi. Mm. wàllu enregistrement illicite. coow leeg ñi ñuy woog. adamul istiqraar bi am na bi sécurité insécurité. réew mi fi mu toll nii. ci sa jàngat. yow en tant que sénégalais en tant que imam en tant que nit koo xam ne. yaa ngi topp ni dëkk bi demee. fi de fi Sénégal toll actuellement nii. man léeg-léeg. damay jaaxle. parce que Sénégal yi dañu xaw a yàkkamti tuuti. Hmm. bon ñi fi nekkoon toog nañ fi douze ans wala. Hmm. très bien kii ñëw léegi toogagu fi sax un an. Hmm. ñu commencé di yuuxu. loolu tamit bokkul ci ci ci ci bokkul ci xikma. Ah waaw mais xam nga dafa am loo xam ne boo ko tàmmool nag. bokkul ci xikma. parce que nit ki. da nga koy yoxal bàyyi ko mu liggéey surtout bu la décliné bu la wonee programme am nga d'accord ci te mu commencé def ay jéegu man pour man dafa am lu laxasu ci suuf mooy réew mi rek dafa naqaree diriger rek mais loolu noonu loolu laa gisee da nekkuma fi pour défendre kenn mais dama gis ne am na jéego yu am solo am na programme bu am solo bu ñu tudd am na ay emploi yu ñu war a euh, euh, ñaata mille ñaata cinquante ñaata emploi hmm, cinq mille cinq cent cinq mille hmm. cinq cent emploi léegi ñu ngi ci ay ñu ngi ci ñu ngi ciy doxal ñu ngi ci fonction publique di inscrire hmm. di xel bon mbënd mi am nañ ci ay ay ay ay waxtaan ñu def bon alors déjà daara yi xam naa ne sax c'est euh, jóg nañ ci très tard réaction la mais daara yi déjà nee nañu recensé nañu six mille quarante quatre daara ak yooyu pour defaraat affaire yi bon alors dund bi ñu ngi ci dugg défendre ma de. dund beeg mais dama ne demande bi moo fort. dund beeg gaz yu manqué yeeg demande sociale bi moo fort moo tax Sénégal yi di jàmba dafa bari. waaw mais mais wax nañ dëgg. fan yii gaz amul. mais wax nañ dëgg <laughs> wax nañ dëgg. waaw jàmbat bi moom il faut mu am. Hmm. moo tax lépp lu gouvernement bi góor góorgóorlu état bi lu mu góorgóorlu góorgóorlu lu euh, demande sociale bi moo gën a fort. Hmm. comme demande social bi moo gën a foor nag. ah ñoom il faut que ñu gën a encore muñ. gën a di communiquer ak nit ñi. gën di initia jël ay initiative gën di prévenir du ñu xaar ba dara ne ku ne joon rek ñu commencé. Euh, yëngatu di wax ay yoo xam ne mm. parce que loolu moom lay lay lay lay lay lay lay critiquer souvent no gouvernants c'est-à-dire ñoom prévention la ñu mënul prévention daal la la la ñu desee mm. di xool Ah, te xam nga xam nga même siyaas mhm. xam nga tanabbu dafa baax mhm. booy seet alxuraan sax gis nga am na mbokk mu ne na mbokk ci ligne bi ñàkkul ne am na lu mu bëgg a yokk asalaamaaleykum allo allo waaw kooku ñëwul li ngay tuddee ci tanabbu mhm. waaw nga prévenir tawaqqul ahdaas qabla majiha qabla wuquiha il faut que loolu xaakim bu ne responsable bu ne war na def loolu ah toog Sénégal ne ah mu ñu dey fii ay at defe naa danañ jànkoonteeg problème bi ak problème bi ak problème bi ñëw leen nag du ñu xaw toog nag di nelaw wala def leen ba problème yi taxaw mu door a jóg loolu la ñuy def ñoom. Mhm. te loolu bokkul ci xikma dangay ngay da ngay ñoom ñoom dañ koy wax sax am na seen problème kii gouverne prévient. Mhm. qui qui gouverne ah, oh, ah, yooyu ñoom ñoo koy. texte yi moom leer na. waaye dama xamul ndax application bi moom. loolu nag. Mhm. yaatu na. Mhm. texte yi. yaatu na ci ñi doxal àddina. leer na nañ. daanaka am na sax texte yoo xam ne tam leer na mais méngoowul ak suñu bëgg. loolu beneen problème la. texte parce que nit booy booy tëral ay xawaanin di tëral ay loi da sàmmoon teeg habitude réew ma sàmmoonteeg ngëm-ngëmu réew ma sàmmoonteeg jikkoy réew ma sàmmoonteeg masla peuple bi mhm. waaw yooyu yëpp nag mhm. bu amul ci loi loi bi day day day wax waaye peuple bi day dëddu loi bi daf koy dëddu dafay tumuranke mhm. dëddu ko di def leneen loolu mooy problème daara yi tey jóg nañu ne dañuy seetaat daara yi dañ koy seetaat defaraat ko jël ko en charge wutal ko cadre législatif mais loolu c'est très bien mais nañu fexe ba ñu former sëriñ daara yi ba ñu yeyoo dem ci daara yi. ba ñu defaraat bu baax. allo allo bu ñu moderniser daara yi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. cheikh bi ñu ngi jégalu waaw. sëñ bi ñu ngi lay ziare. ñu ngi leen di delloo ziar kay. maa ngi ziare sa invité boobu nekk. imam Ismaïl Dem waaw. waaw uh-huh, uh-huh. ñu ngi leen di ziare. maa ngi wootee fii si Nouadhibou Mauritanie. Nouadhibou waaw. Uh-huh. waaw di kontaan si yow di kontaan si say émission. vraiment macha allah ñu daal kontaan nañ trop. Mhm. ci équipe TFM yëpp daal. Mhm, mhm. waaw di wax nag li ngeen di wax ci affaire ambassadeur yooyu kooku dafa am solo. waaw ndax nga am ambassadeur bu nekk Angleterre te déggul anglais. kooku na moom da ngay waar. comme nga am tamit ambassadeur bu nekk maanaam si dëkku naar yi te dégguñu arab kooku encore vraiment moom sunu xam nga sunu président yi da war nañu ci xam nga. jéem def daal loo xam ne si daal képp ku déggul arab warul dem si dugg arab mhm. waaw waaw waaw encore di leen encore wax si encore euh, réew mi léegi xaw na am ay jafe-jafe ñii di wax ak waaye tamit. Mhm. ñu fàttali ko ne maanaam ak réew mee ko fal. Mhm. waaw réew mi nag dañ ko war a jàppale nag jàppale que xool programme fii ak cinq ans comme moom nee cinq ans lay toog. bu cinq ans lu mu defee programme baax na ah. maanaam ñu da ko joxaat encore yeneen cinq ans bu dee nag dañoo yaakaar ne cinq ans yi mu def encore du loolu ah ñuy jéem a xool ko waaye di yàq si di waxaat di def lu nekk defe naa ne yooyu dafay tardé rek. Mm-hmm. Mm-hmm. dafay tardé réew mi tardé encore gars yi encore dirigé. Mm-hmm. waaw kon donc daal maa ngi leen di gërëm di leen sant. jërëjëf di wax daal kontaan nañu si seen émission. bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci euh, am na ñu lu ñu yonent bi jàngaloon ci wàllu politique ak campagne hmm. na ko wax ne gaañi noonu suñu mbir yi bul ko laaj hmm. lu tax mu ne boo ko laajee buñ la ko joxee dañ lay seetaan hmm, dëgg la waaye buñ ko yëkkatee jox la ko dañ lay jàppale waaye nag dañuy laaj euh, ma yaakaar ne nit ki boo ko jiitalee it bul ko fakkastal mais boo da koy jiital jàppale ko mais fii da day doy waar da ngay ànd jëlee fi mm-hmm. après continuer waat di xeex coow li politique bi ñëppay politique bu may mm-hmm. wone la ñëppay wax ñëppay politique mm-hmm. session réew nañ koy doxalee kenn ku ne am nga ca xam-xam ak yi demee noonu mais incha allah yal nañu yàlla jàppale boo ñëwee itam ci problème mu comme ni nga ko waxee ni nga ko waxee léegi siyaasatul balad buñ ko ñëwee ci fi waxte raahin am na lu ñuy tuddee ay na axasta haada loi loi bu yàgg la ñu koy tuddee enregistrement illicite baat ba tubaab la mais. l'islam la woon de. Amar ibn al-Khattab génne woon na ko. ay na axasta hada. Amar hmm. eh, ibn al-Aziz Amar ibn Abdul Aziz. Amar ibn Abdul Aziz Amar ibn Abdul Aziz. Hmm. soxnaam mos na koy laaj benn caq ci baytu malil muslimin. Hmm. comme première dame laaj ko benn caq pour takku ko. dafa lànk daf ne ko bu ëllëgee damay bañ ñu ne dama jël sama alalu réew mi. jël ko jox ko sa jox ko sa soxna. am benn waay bu ma ciy waxtaanal mu yem ci Margaret Thatcher mm-hmm. la femme d'affaires bu Angleterre mm-hmm. bi mu jeexalee war a génn pale bi mm-hmm. mu demoon fu mu tukki woon ñu joxoon ko benn caq mu takk ko ci baatam bu muy génn jour bi muy jeexal di génn mu rappelé woon na caq bi dañ ko ko joxoon cadeau te nekkatul nekkatul nekkatul nekkatul premier ministre mu fàttaleku ko dëpp delluwaat tekki caq bi delloo ko ci pale bi ba pare wan nit ñi ne leen daf ko fàtte woon moo tax mu delloowaat ko fa loolu jàng nañ ko ñu Margaret Thatcher mais dama lay wax ne la Omar ibn Abdul Aziz ni mu ko defee moom la ma rappelil ca soxna sa ca cadeau yam ko doon laaj ak lañ doon joxe yëpp ba mu jeexalee mu laaj ko mu ne ko duma la ko jox ndax alalu jullit ñi la bu damay bañ bu ëllëgee ndax mu ngi xalaat bu jeexalee bu ëllëgee damay bañ ñu ne dafa jëloon alalu jullit ñi jox ko soxnaam dafa mel ni yooyu moom lañ bëgg a génnewaat comme enregistrement illicite ci Sénégal nee naa baax na nee baax na ndax ñi koy joué tey war nañuy sóoraale bu ëllëgee buñ jeexalee ñoom it dinañ leen loolu bu yàggee am léegi Sénégal jaar yoon yooyu nag ñu bëri tey ñii ne neen rafet na ñii ne rafetlu wuñ ko ñi ne dañ ko war a bàyyi ñii ne nangam ak nangam yaa ngi doon dégg xaw ma intervention xaw ma lan pénal coow li ne cour foofu itam au niveau de présidence ak réew mi loolu itam yaa imam en tant que sa jàngat comme ni ma la ko waxee woon loolu lan yow nag nga ko gisee ci avenir u Sénégal bu ëllëgee unanimité kenn mënu ko am. Mhm. kenn mënu ko am yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy baax baax bu dafa am ñu ko compte. Mhm. ba dee ci loolu. Euh, amul kenn ku mun a am unanimité jamaa nga xam ne al kullu yaxda'u li awaamir rek kooku amul. Mhm. te day te loolu mooy importance sax démocratie mooy ñii wax nii ñii wax nii ñii wax lii ñu seet ñi ëpp ci li ñu bëgg ñu defal leen ko. c'est important président Macky xam na xam na ne mënul am unanimité xam na ko bu doon am unanimité kon cinq pour cent ñu ko woteel lu dëgg kon 100 pour cent ñoo koy woteel. Mhm. te loolu mënul am kon nag fi mu ne loi boobu majorité bi yëpp d'accord nañ ci ndax li ñu pasar pasaree man dema toog ba ci ñu ne diw am na ay milliards am na milliards. mais xoolal man bi ma juddoo bi ma amee euh, vingt neuf ans ba léegi maa ngi liggéey maa ngi liggéey ba léegi maa ngi liggéey sama morom yi retraité nañu ba léegi maa ngi liggéey mënu maa dajale un milliard. amaguloo un milliard. déedéet xam nga luy un milliard. allo salaam allo salaamaaleykum bu ñu jëlee mbokk mi ñu xool ba xam allo salaamaaleykum. maaleykum salaam kooku la tey. waaw soxna si. <clears throat> maa ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay waaw imam mhm. di kontaan nag trop mhm, mhm. waaw ci télé yàlla xam na ko. wante man dama bëggoon daal xam naa ni waaraatekat yi. ñu gën di waaraat di gën di waar doomu aadama yi ci lislaam. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. moom la ñu yàlla yónni. Mhm. te man dama Sénégal. Mhm. ci allo. ñu ngi lay dégg waaw ni ñuy wax ci ni ñuy wax ni ñuy waxtaanee ci diine jëfewuñu ko. wallaahi fekk ah, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo gën a màgg ñëpp. war nañoo delluwaat suñu bopp. ci yàlla suñu borom. war a mm. delloowaat suñu bopp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ni. Mm-hmm. moom la ñu yàlla yónni ci ñoom. Mm-hmm. waaye nag wax ji daal moo gën a bari que. Mm-hmm. ngeen baal ma mais. war nañoo fóotaat suñuy xol. war nañoo delloowaat bu baax a baax a baax a baax suñu bopp ci yàlla suñu borom. te xam ne bu ñu jaamuwul yàlla. topp ñu sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa ñoo ngi suñu bopp. nañu góorgóorlu ci suñu jaamu yàlla. Mhm. nañu góorgóorlu ci topp suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. ndax kat xol kenn nekku fi ku dul yàlla suñu borom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. man loolu rek la amoon nag ci li ma doon. macha allah macha allah xam na ne may sama première ah, woote ci waree ci. Ah, télé mooy tey maa ngi leen di nuyu leen gërëm di leen sant jërëjëf soxna si jërëjëf wootee fii ci New York macha allah ngeen baal ma kontaan naa nag man waxtaanu diine wu ma dégg rek bu nga xamante ni ñu ngi ciy wax ah, yonent bi mm-hmm. allah jërëjëf waaw jërëjëf waay jërëjëf soxna si jërëjëf na bi soxna si soxna mu wax am na solo mu ngi wootee depuis New York soxna si ñu ngi lay mm-hmm. nuyu mm-hmm. di kontaan ci sa intervention gis nga àddina bi nag jaamu yàlla rek moo ñu fi indi. Mhm. waaw jaamu yàlla rek moo ñu fi indi. Mhm. wa maa umiru illa li abudullah muxlisina mhm. lahu diin muxlisina lahu diin eh, te jaamu yàlla nag mooy teg mooy tegtal bu gën a mag bi mooy li yonent bi daan jaamoo yàlla lépp li yonent bi daan jaamoo yàlla ba yàlla di ko àjjana ne ko yow anta minal mubashirin defe naa foofu la jullit bi war a teg tànk wax na lu am solo léegi nag man wax na dëgg de sax ma doon d'ailleurs l'occasion moo wax ne. Hmm. léeg-léeg damay tiit damay tiit. Hmm. bu ma dégloo télévision bi seetaan télévision yi damay tiit ci yenn wax yi. Hmm. waaw dafa am ñoo xam ne bu ñu toppee seen wax danañ musa a jaamu ji sax ay xërëm wala jaamu ji ay nit. ñu fàtte yàlla ak yonentam teg leen fële di jaamu ay nit. te loolu musiba la. Euh, mu ngi ci discours yi moo tax discours religieux yi dañu war a seggaat xoolaat leen. Mm. parce que suñu xale yi suñu doom yi bu ñu màggee ci loolu defe naa dootuñu xam yàlla dootuñu xam yonent mm-hmm. te loolu wax na dëgg soxna si wax nga dëgg wax nga dëgg nañu delloo nit ñi ci pratique bu baax pratique nit kenn rek moo yooyu jaamu mooy yàlla. Mm-hmm. tey tamit waxtu wu ñu jaamoo yàlla bàyyi kook suñu bopp yàlla danañu téyel boppam. Mm-hmm. waaye bu buñ ci dugalee lu ci war dugg rek ci ay fitna la ñuy dëkk. Mhm. Sénégal ay jafe-jafe rek ay jafe-jafe mhm. yàlla xëy na du ñu alak ndax digg na ko umatu Muhammad am na ñuy baax. waaye dinañ dund ci am na ñuy baax. Mhm. am na ñuy zikr. am na ñuy jaamu yàlla. am na ñuy def lu baax. sénégalais damay wax ne ku baax la sénégalais. mais majorité bi ils mal orientés. dañuy defe li ñuy def lu baax daf may fàttali aaya bi. afa xasiba alladina kafaru an yattaxidu ibadi min duni awliya inna aatadna jahannama lilkafirina nuzula qul hal nunabbi'ukum bil axsarina a'mala alladina dalla sa'yuhum fi lxayati dunya wa yaxsibuuna annahum yuxsinuuna wa yaxsibuuna annahum yuxsinuuna sun'a ulaika alladina kafaru bi ayati rabbihim fa habitat a'maluhum fala nuqiimu lahum yawma alqiyamati waaw yàlla yàlla musal ci loolu waaw mais nag ñun lam nakfur bi ayati rabbina nahnu amanna bi ayatihi la al kufru <laughs> al kufru waaw al kufru millatun wahida mhm. yaani al kufru huwa euh, imma an yakuna amalan aw filan mhm. ah, filan aw qawlan aw qawlan al kufru anta taqumu bi ashya yaa ngi jóg di def mbir yoo xam ne euh, yàlla diglewu ko yonent bi diglewu ko mu ngi mel ni kon yow da ngaa nekk ci kaafir mhm. parce que yaa ngi weddi li nga xam ne moom la mhm. yàlla digle mhm. moom la yonent bi digle ci la tënku woon ngay woo nit ñi ci loo xam ne amul yal na yàlla gën a leeral bopp yi rek leeral dënn yi leeral bopp yi ba xam eh, yëf yi fan la ne moo tax soxna si li mu wax dëgg la am na solo ñu ngi koy gërëm allo waaleykum salaam papa leen ñu ngi leen di dellu ziar man ko lu sopp laa waaw waaw waaw waaw bi nga wax ci émission taalibe sax maa ngi déglu mais sa kàddu gi am na solo trop. Mm-hmm. mais dëkk bi nag euh, dafa metti waaw. Macky wooteel nañ ko waaye dafa mel dafa ñëw dafa fàtte population bi daal. Ah. Mm-hmm. te loo loo sentir. te su ma sañoon daal audit bi lay bàyyi mu liggéey jox jeunesse bi ñu ñu liggéey. Mm. mu bàyyi audit bi. Mm. xoolaat entourage am tamit bu baax. Mm-hmm. parce que li ñu daloon ci Ablaye Wade tamit bëggu bëgguñu ñu mu dalaat ñu. Mm. looloo taxoon ñu dindi góor gi falaat ko. fal ko moom. waaye gisaguñ dara daal dëkk bi dafa gën a métti gën a wow gën a kii daal ak euh, problème mu taalibe yi tamit. Hmm. nit soo koy bàyyiloo dara da koy jàppaloo ci dara. Hmm. Euh, ànd nañ ànd nañ ci euh, ñàkk yalwaan bi parce que keroog dégg naa émission yow nee nga àndoo ci. Hmm. te dëgg la tamit parce que euh, bi ma ko déglu maa ngi ko wax sama yaay sama ne ko tonton Taïb li mu wax dëgg la mm. parce que booy xool taalibe seen yaay dëkkuñu fi mm-hmm. ñii ñu ngi Guinée ñii ñu ngi Mali xam nga dafa dafa métti daal mais mm-hmm, mm-hmm. na xool aussi loo xamante dina ko jox dina former benn euh, genre euh, école boo xamante ne ni mm. ñoom ñëpp fay dajee jàng xam-xam daal te Sénégal tamit na ko xoolaat agression yi bëri na ndóol gi bëri na jeunesse daal jeune bi daal jeunesse bi daal sonn nañ te ñun ñoo ko faloon aussi na xool entourage bu baax incha allah moom Macky. Mhm. waa kay jaajëf. ma ni eh, est-ce que yaakaaroon na un an pour Sénégal neexaat ak yaa ngi ne nañ bàyyi audit yi audit yi buñ ko bàyyee muy xaalis boo xam ne ñoo ko moomoon xëy na ñu ne ci liñ wax ñu ne ranlal nañ ko yóbbu ko est-ce loolu duñ ko lijjanti boo léegi li ca kanam wala ñu bàyyi leen ko ñoom ñu. déedéet parce que audit yi tamit dafa jël temps. déet man man jàpp naa ne est-ce que audit yi war nay tere audit yi benn kuréel lañ ko war a dénk rek ñoom ñu di ko saytu la ci des ñu dem continuer liggéey waaw kay waaw xanaa mënoo wax ne gouvernement benn place tamit doxul gis nga tamit euh, man a jaaxal aussi benn affaire tamit hmm. ñu joxoon la dugg fan ah. hmm. waaw ba léegi yi moom la moom moom la ñuy moom la ñuy déglu parce que ñun ñoo dugg si biir population bi wax waxal waxal waa simi waa ñi nekk ci mbënn mi ñu nekk ci bënn bi bañ jox ñu xaalis bañ ñëw di ko remettre ci télé yi ñëpp gis ko mais ba léegi tamit kenn waa Sénégal li fi nekk moo doy waar <laughs> dañ naan sax boo xoolee sax dañ naan Ablaye Wade sax moo tane woon Macky Ablaye Wade sax moo tane woon parce que Macky avant muy toog ñun gis nañ ko nee nañ ko ñun maa waxoon waa xet bi la ñuy bañ aussi ñun tamit boobu la ñuy mm-hmm. bañaan mais dafa mel ni tamit Sénégal daal ñun amaguñ ko ñu bëgg amaguñ ku ñu ah. bëgg audit bi lañ ko te comme ni nga wax dem liggéey waat leneen maanaam ñu dénk ko benn kuréel waaw parce que ñooñu ne ca des ne yeneen loolu laa wax man waaw kay parce que da ngay xool tamit euh, affaire daara a bu lakk bi amutoon duñ ko wax te te problème yàgg na fi waaw kay tam ki tamit day bàyyi ba benn affaire am rek mu mu mu dugg si di wax xam nga loolu c'est pas normal ak ak ak ñi nga xamante bi dindi na leen ci yoon bi tamit ak ñi nga xamante ni tamit dindi na leen ci yoon bi tamit nagul leneen lu mu leen jox bu dul loolu tonton Taïb agression yi day encore day bëriwaat waaw loolu am na waaw euh, euh, benn kantina mais buñ ko yëkkati sax buñ ko duñ ko tàggu loolu tamit dafa metti mhm. Sénégal na trop ba ñun man daal man daal li ñu naan mujj mujjub jamono lañ ne man gëm naa loolu. <laughs> non adduna bi xaajagul. ah déedéet man gëm naa loolu. jaagul de parce que yow tamit bul bàyyi rek sa bul xool sa bopp yow li la arrangé mais xoolal tamit population bi la fal. Mm-hmm. du dëgg mm-hmm. xoolal tamit ñi la fal ñi la fal tamit nga jàppale parce que xale góor yi amul lu liggéey bu liggéey amul tamit agression yi nit ñi de yaakaar rek lañuy ñuy am na xool entourage allah entourage am bu baax allah jërëjëf soxna si jërëjëf ñu ngi lay gërëm ci sa kaddu yi sa kaddu yi am na importance loolu macha allah ndax nit ñi itam nag il faut ñu xool euh, te gis ne itam yëf yi la un an la naa la defagum ah xëy na fekk na jafe-jafe ñu dujjanti jafe-jafe yi yàlla rekk a xam en tout cas yàlla na moom laa commencé woon ci sama wax jafe-jafe yi yàlla na ko yàlla woyofal. defe naa loolu laa tàmbale woon. kon jafe-jafe am na gis nga ñu koy waxee. voilà yaa imaam defe naa ne loolu la. Euh, ci fii réew mi toll ak yi demee noonu ci ni ñu ñu ko yonanti bu waxee. waaw soxna si am dafa am lu am na am na mbokk mu ne ci ligne bi bu ñu ko jëlee comme ñu xool li soxna si wax allo salaamaaleykum. salaam. Seydou Socé. waaw kay. na ngeen def waay. mu ngi fi rek alhamdulilah. alhamdulilah. maanaam ñu ngi rafetlu émission mhm. eh, maanaam ki mujjee wax. waaw. d'accord ma ci lu mu wax. Mhm. gis nga ab mhm. dem koy teg yoon. dégg maanaam euh, suñ suñ suñ leen toppul. waaw. maanaam ñi fi nekk noonu la ñuy def. buñ fi jógee ñoom it jël liñ fi yowoon yóbbu rek kenn du topp kenn. noonu kon lu mun a sotti ma ne. day war de ah. tollu na foo xam ne. Hmm. maanaam man bitim réew laay woote. Hmm. maanaam li may gis ci télé Sénégal yi. Hmm. maanaam ñi nga xam ne ñoo ilif télé yi nañ bàyyi seen xel ci li ci film yi ñuy wone. ndax RTS. weer wala passé gis naa fi benn film boo xam ne ci heure bi ñu doxal man su ma doon su ma doon su ma doon gouverner Sénégal kooku directeur bi dinaa ko dinaa ko dàq. wala nga wax ko ñu bàyyi ko. maanaam dàq ko lay def. <laughs> waaw hmm. yow maanaam borom kër toog. ak ñebe boo tax. Hmm. di seetaan télévision. nga gis góor te kaw jigéen di ko def loo xam ne maara day taal. Mhm. loolu jàmm la. nga changé nga toxal. comme ko toxal yomb la ma hmm? ne. Hmm. Sénégal toll na xam ne. Hmm. jamono yi nga xam ne euh, yàlla daan na yónni yonent ci ci ab ab mbéero maanaam ci kees. Sénégal toll na foofu. nañ bàyyi suñu xel ci li ñuy wane ci télévision yi. incha allah. Sénégal réew bu baax la. Mhm. ay nit ñu baax a fa ne. Mhm. ay wàllu ñoo fa nekk. waaye aduna yàqu na yàqu yàqu boo xam ne. Mhm. maanaam nit ñi xoolatuñ xoolatuñ xoolatuñ li nga xam ne moom la yàlla jox. yonent bi sallallahu alayhi wa ci waxtaanam bu mujj. dafa ne woon danaa leen bàyyi ñaar ci kaw suuf. Mhm. ku topp ñaar yooyu lu àdduna yàqu-yàqu. di nga ci mucc. doo bokk ci ñu yàqu. Mhm. mooy alquran ak sunna. Mhm. waaye ñu bàyyi alquran ak sunna def dindi ko ci leneen. ah. suñ ko. am na yàlla jàppale. <laughs> sànni. waaw kay. ma waaw. réew mi nañ ko defar. Mhm. gis nga ku nekkul ci dëgg. Mhm. nañ ko teg ci yoon. Mhm. Sénégal Sénégal ne leen ne leen autorités yi ñu bàyyi xel immigré yi nekk ci àll bi. immigré yi ci àll bi ay milliards àll bi. nañ toppatoo xaalis boobu luñ mën a def pour mu dugg ci Sénégal benn Sénégal lay liggéey. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Cheikh bi. yaa imam voilà euh, gaa ñi seen réaction da ngay xam ne kenn ku ne. waaw am na lu muy sentir am na lu muy yëg am na lu muy seetlu it encore. mais c'est bien ah, ma looloo baax. xam li nga yor nga saytul ko sa bopp. nit wax seen xalaat. la la xayra fiikum. waaw idaa lam taquluha. Hmm? wa amruhum shura baynahum hmm. et puis munaqasha yi dafa baax hmm. ku nekk wax sa xalaat mais ci dal ci teey mais nag euh, et puis nga nangu xalaatu keneen ki mais nag euh, léegi xam naa léegi xam naa ci gàttal waaw waxtu yi moo ñuy dab thème yi du jeex boo fi doon toog ba bëccëg it wala ba ngoon it gis nga ko ah, même réaction la parce que nit ñi li ñu sentir dëgg la moom la ñuy wax ak li ñuy yëg moom la ñuy wax xëy na autorités yi ñu ngi koy suivre ñu ngi koy dégg xam nañ fi nit ñi toll ndax bu jafe-jafe amee doomu dañuy yàkkamti wa xuliqal insaanu ajula yàlla moo ne doomu aadama dama ko bind mu yàkkamti euh, lam bëgg la nga ko dig démb bërki démb pour moom na ko gis tey mais il faut la budda bi sabru mun sa ñàkk mhm. euh, noonu lay demee mais ñu ngi koy dégg ñu ngi xam fi nit ñi dund ak yi demee noon dama xamul sa kàddu yu mujj parce que waxtu bi dab na ma euh, dab nañu yaa imam waaw yàlla ñu yàlla musal ci insaan boobu mhm. yàlla may ñu nekk ci inin mhm. parce que inna al insana xuliqa halua halua boobu baaxul yan ci yàlla musal ida massahu charru jazua wa ida massahu alxayru manua boobu baaxul illa al musallin illa al musallin nañ julli ji ñooñu la ci génne jaamu yàlla baaxoon li soxna si ñooñu la ci génne woon nañ nañ jaamu yàlla ak ay jikko yu ñëw ak istaino bi sabri wa salaat defe na baax na kon hmm? loolu mooy lan mooy le gouvernement état bi Sénégal nañu xam ne du ñu ay tubaab fii ay jullit moo fi nekk ak ay chrétiens. Mhm. d'ailleurs du ñu passé comme ñu ngi wax chrétien suñu mbokk chrétiens yi te félicité wuñ leen. Mhm. ci seen kilifa jàngu bu bees bi. Mhm. parce que ñun ak ñoom ñoo bokk réew mi foo ñu mos ak ñoom. bokk ak ñoom naqar. bokk ak ñoom bànneex mënuñu ko bañ. kon ñu ngi leen di. islam moo ñu ko sant. islam moo ñu ko sant. seen kilifa njàngu bi ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak tawféex. ci li muy def eh, bu ko defee. suñu kàddu gu mujj mooy hmm. nit ñi nañu ànd ak dal ak teey hmm. ah hmm. état bi bu mu fi mu sóobu day yokk dépense am na ko wàññi na président mag Macky wàññi dépense yi parce que loolu la digg la woon askan bi na toppatoo askan wi ceeb bi ba léegi cher na diwlin bi cher na dund bi cher na euh, gaz amul électricité bi mu ngi euh, kii mu ngi kii njàngam bi baaxul kenn du euh, kii OM euh, OMD yi ñu waxoon échoué na ministre de de finance moo ko waxal boppam du ñu mun a atteindre objectif yi kon nañu seetaat planning beneen planning. te ñu wuti xaalis. nañu fonk njàngum arab mi. Mm-hmm. nañu wuti xaalis nañu waaw nañu wuti xaalis mais nañu fonk njàngum arab yi mhm. mais bu ñu wutee xaalis aussi nañ ko sakkanal mhm. parce que ñi fi ne woon amoon nañu xaalis mhm. mais saa yi amoon nañu xaalis mais dañ ko séddoo dañ ko doon am nuñ dañ ko séddoo mu jeex ah boobu nag la lijjanti kenn kon la cay sawal am na soxna su wax ne bu ñu ko lijjanti noonu nañ ko lijjanti kay bu ñu ko lijjantee Euh, li mun a delloo delloo si li ñu am ci lu lu dul yoon mhm. ñu delloo si ko mhm. li ñu euh, ñi ñu war a euh, teg ci seen kaw yoon il faut que yoon am fi mhm, loolu nag la président Macky digal di dige woon te loolu mu ngi ci dafay metti nag mais nañu ànd ak muñ ak tey il est vrai que man ma fi di défendre kenn waaye nag vraiment Euh, suñu rôle citoyen la ñuy def rek. Mm-hmm, mm-hmm. nañu ànd ak dal. jërëjëf jamono bu àddina bi mosul neex. jërëjëf yaa imam jërëjëf yaa àdduna bi mosul neex ci jafe-jafe la mosu dëkk. waaw yal na woyof euh, ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ci xiraa ay yi nga xam ne def nga ko mu bari lool. di gërëm itam mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan télévision bi ci àdduna bi yëpp. di gërëm itam ñi nga xam ne woote nañu joxe seen i xalaat ndax lépp réew mi rek lépp ñunu neen la réew mi la. bu réew mi jaaree yoon ñun ñëpp ñu ànd ak dal bu dee julli ñu mën a julli bu dee jàmmu yàlla ñu mun jàmmu yàlla bu dee sécurité ñu mun a def lépp moo tax euh, euh, maanaam société société islam daf ko yittee lool lool lool ndax société bi ay jullit ñoo ko dëkkee ay jaamu yàlla ñoo ko dëkkee te wa laqad karram na bani aadam yàlla daf ne dama teral doomu aadam teraanga jooju mu jox ko nag moom la nit kii di jéem a sàmm ku wax ne ci laa nekk it sàmmal nit ñi seen teranga la nit ñi it seen teranga bañ a yàqu moom la ñuy défendre te loolu yëpp ci jaamu yàlla bokk ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kutiba alayhi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabi sair bismillahi arrahmani arrahim يا